di ko jot li suñ muntaxaa. di leen xamal ne itam. di leen xamal na itam. fii ngeen ñëw. fii ngeen ñëw. barab la boo xam ne. la boo xam ni. li fi nekk ci mbóot. li fi nekk ci mbóot. mëneesu ko wax lépp. nee na mëneesu ta wax lépp. nee na moom mënu koo wax. li ma ci xam rek. nee li mu ci xam rek. la ci mën a wax. ak li mu ci dégg. ndax mhm. ndax barab bi. sëñ Afia mi ngeen di gëstu. sëñ Afe sëñ Touba moo def ci moom lépp. sëñ Afe nag suñ Touba def ci moom lépp. ndax ba daanaka ba mu ba mu matee ba matee dara rek. nee na daanaka ba sëñ Afe matee dara rek. la topp sëñ Touba. la topp suñ Touba. di ko liggéeyal. di ko liggéeyal. dem ci àll ba. di dem ci àll ba. ànd ak murid yi. ànd ak murid yi. yorum naawal. yorum naawal. naawal naawal naawal boo xam ne sax. saaku saaku la daan doon saaku. nee naawal boo xam ne sax saaku la daan doon. di ànd ak taalibe yi. di ànd ak di liggéey. di liggéey. liggéey sax ba xiif. nee na daana liggéey sax ba xiif. du gis lu mu lekk. du mu lekk. dem ci jànj. rukk ko rukk ko. di ci xéewlu. nee na bu ci xéewloo ba dëgër. delluwaat ci liggéey suñ tubaab bi. nee na kooku nag ku gëpp taalibe. yaa ko xam. yaa ko xam waaye moom xamu moo tax nee na moo tax. bi sëñ Tuubaa nekkee fii. daana jekki ba dégg guddi. daana jekki ba guddi jot. ba dégg guddi daana jekki ba dégg guddi ba suuf sedd. daana bàyyi ba suuf sedd. mu ànd ay taalibe. mu ànd ay taalibe. seet si ñaafe. seet si te li muy wax ñi xam nañ te li muy wax ñëpp xam nañ su Afe itam. ne sëñ Afe itam. daana jékki ba guddi. sëñ Afe daana jékki ba guddi. mu yónnee di ko woolu. mu yónnee woolu. seen diggante. seen diggante. ku cay wax. ku cee wax. da nga wax tuuti rek. da nga cay tuuti rek. da nga cay barkeelu. da nga cay barkeelu. waaye mënoo caa wax lu ëpp dara. waaye xam naa bu ngeen demee ci gone yi. xam naa bu ngeen demee ci gone yi. bu ngeen demee ci gone yi. dañ leen mën a leeralal. dinañ leen mën a leeralal. lu bari loo xam ne lii. lu bari loo xam ni. lu mel lu mu bàyyi la noonu rek lu mel nii la rek lu mel nii rek waaw gone yi nañ ko mën a wax ne mi ngi leen di sant bu baax ci liggéey bi ak taxawaay bi ak euh, nii ngeen ñëwee daal ak nii ngeen daal waaw li ñu ci métti rek ne li ñu ci métti rek mooy naaj wu tàng wi ngeen dox mooy naaj wu tàng wi ngeen dox ne loolu rek ko ci métti waaye mi ngi leen sant bu baax di leen ñaanal yàlla may leen ngërëm yàlla may leen ngërëm ngërëmul sëñ Tuubaa ngërëmul sëñ Tuubaa yàlla na leen ko yàlla may mbooleem ñun ñëpp ndax mbooleem ñun ñëpp ngërëmul sëñ Tuubaa ngërëmul sëñ Tuubaa rek la ñuy wut ñun ñëpp ñun ñi ñëpp ci waay di yëngu rek ngërëmul sëñ Tuubaa la ci sab kon mi ngi leen koy ñaanal ngeen santal ko sëriñ bi daal moom te xam ne mu ñu lu jul moom li xam ne moom la moom am lii ñu am ñun moo ñu ko jox moom sëriñ bi moo ñu ko jox te te lii nag lanu am lanu am muy sëñ Afe ku ne euh, la la yàlla may rek kenn ku ne la la yàlla may rek nga am ñun nag ginnaaw bu sëñ ci lan bokk ah, mu delloo ñu sëñ Afe mu delloo ñu sëñ Afe ñu ngi koy sant bu baax di ko ñaanal tubaarkàlla jërëjëf ñu tàllal loxo rek ñu noppee ku bëgg a gis néeg bi sëñ Afe dëkkoon mi ngi nii rek سيدنا محمد والآل وزابي في الآل والمآل ومن مدادي كل ما ساء يا من له أوجه الإنساء يا ربنا صل صلاة طائرة ما سلام لإداك خائرا على الذي أعطيت أقلامي مزمن